muy traitement mauvaise haleine bi traitement général la ni ngeen déggee ma waxee ko ba lépp li nga xamante ni mooy lu nit ki di dund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 wala numéro 646 41 21 ñett numéro yëpp c'est disponible pour ci commander incha allahu rabbi euh, joxel sa tour ñu defal la garab bi su paree nga jël ci ko Géejawaay arrêt Doubalès kër Serigne Bara wala wa ilaa am livraison à domicile fo mëna nekk ci Sénégal ci territoire national dañ la ci mëna jox ba nga mën jot ci say traitement incha allah jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal seen cabinet univers bio dañu délu si ci yeneen feebar incha allahu rabbi merci